que ñu ngi leen di point de presse pour waxtaan ak yéen waxtaanaale ak population ci wàllu jafe yi nekk ci commune Pambal. bi ñu fait taxaw ñu xayma xayma bu daw yaram ci mbiru yorinu bi muy maire bi conseillers municipaux yi ci ak ci développement commune bi dañu war nañu waxtaan ak population bi waxtaan ak gouvernement bi ci jafe-jafe yi am ci askan wi tey bu njëkk mooy compte administratif 2016 maanaam bilan bilan bi bi ñu yoree woon mairie bi ci atu 2016 te ñu waroon ko def ci atu 2018 bii conseil bi daf ko rejeté ci pexe yi ci war-war yi nga xam ne bii ñu ngi koy lim bu njëkk bi mooy lépp lu jëm ci wàllu extrait maanaam képp kuy wut kayit ci mairie bi li nga fay dañoo seetlu ni duggul ci keesu mairie bi naka noonu tamit ñu seetlu ne villageois yi nga xam ne bii seen mën seen seen seen doole barewul seen mën-mën néew na dañoo seetlu ne l'impôt gi nga xam ne bii dajale woon nañ ko ñu fay ko lempo boobu duggul ci keesu mairie bi ginnaaw loolu tamit ñu seetlu que am na benn montant bu deux millions six mille bi nga xam ne bii mu ngi nekkoon ci compte bu ñu tuddee ci foofu trois cent treize que xaalis bi jógee na ci ci keesu mairie bi mu dugg ci foo xam ne fii conseil municipal bi joxewu ci autorisation bi ci des ci ginnaaw gisoon ngeen ne ay mbokk slovène dañoo ñëw may ñu appareil d'échographie pour dimbali suñu jigéen yi appareil boobu ñu ñu mayoon dañoo fekk ci keesu mairie ba ñu tibb fa 5 millions 999 mille ñu ne appareil boobu lañ ko jëndee boo xam ne bii dañu ko may bi ci des aussi mooy affaire électrification wu village bu ñu tuddee lu Oggo foofu maire bi dafa dem ci population yi laaj leen ñu cotiser beneen wàcc beneen pàcc bi gouvernement bi moo koy fay bi ñu defee seen cotisation gouvernement bi indi li mu indi xaalis bi jël nañ ko ba 5 pour cent moo ci des te ba tey ñu ne ba la te ba tey population bi mënaguñu gis courant ci ginnaaw loolu tamit mu am benn décaissement wu 1 million 499 mille 495 ñu ne dañ koy def ci école primaire wu Mbaraklu ñu gis ci bilan bi ne maire bi nee na génnee na ko ci kees yi waa école ba nee nañu li ñu jot matul sax xaaju loolu ah ginnaaw compte administratif maanaam bilan bi ñu rejeté am na yeneen manquement yoo xam ne yi tamit dafa nekk ci commune bi ñu ñu fas ci ko yéene waxtaan ak yéen ku ne xam na ne entreprise bu ñu tuddee Cefos dafa jël ay toolu gox bi di ci di ci exploiter carrière léegi mu am responsabilité sociétale maanaam ak bi mu yoreel gox bi ñu xaymoon ko ci 33 million boo xam ne bii at bu jot dina ko jox gox bi ñu seetlu ne bi ñu ko commencé jot ba diggante affaire bi som bi arrêté te tey tey ji kenn mënuñu wax xaalis boobu lan moo tax ñu arrêté ko te Chérif Lo bu ñu ko bokkaloon ñu ngi jot seen xaalis ba tey li gën a li gën a li gën a garaaw mooy xaalis boobu sax ñu jotoon ba tey commune bi nangawu ci def maanaam maire bi nangawul def bilan wu xaalis boobu ñu jotoon ba tey beneen bi mooy wàllu fourniture école yi at bu jot ñu décaissé leen xaalis pour affaire fourniture scolaire waaye ñu seetloo ni li ñuy jënd du mus a ak xaalis bi nga xam ne bii moom lañu dugal ci wàllu fourniture yi ah beneen poñ bi tamit mooy mbiru école yëndaan bi dañu décaissé nañu ci keesu mairie bi lu toll sept millions trois cent mille cinq cent quarante deux francs pour ne dañ koy miire école bi tey tey jii bu ngeen fa demee li ñu fa miire yaakaar naa matul fanaweeru mètre te xaalis bi yëpp dekese nañ ko ci keesu mairie bi ba mu pare. beneen bi mooy école njaxate bi dañu ne woon dañuy xëcc ndox pour dimbali élèves yi ndax école bi am na ay douche am na lu ne tey bu amul ndox rek santé santé xale yi day day kii conseil municipal bi biñ ko autorisé pour ñu. def xëcca ndox bi tey tey jii tamit xaalis bi génn na ci kees bi te ba tey tey jii liggéey bi sax dooragul situation boobu nag dafa nekk situation bu garaaw bu bu bu tiislu bu nakkarlu boo xam ne bii ñun ñun conseil municipaux yi yaakaar nañu ne gox bu mel ne Pambal yelloowul loolu mérité wul loolu ci kaw loolu nag conseiller municipal bi mu ngi demander la démission immédiate du maire maanaam maire bi na fi jógee bés ni ki tey. waaw li may wax ci loolu mooy. dafa di juróom-benn conseil yoo xam ne ñoom laa doon jàmmaar lool ci élection locale yi passé bi élection locale yi passé ba tey daanaka soo xoolee seen présence ci feuille de présence su quatre ans yi nga xam def nañ ko ci magistère bi matul juróom wala juróom benn kon ñooñu tey ñoom ils sont très mal placés pour parler ngir wax ci doxinu commune bi te ngir jox la ay firnde mooy euh, ci fan yi ñu génn rek man maa jël décision ànd ak forum civil ne leen ñëw leen ci sama commune ma ubbil leen bunt yi pendant deux jours ñaari fan la fa forum civil ñëw ñi nga xam ne ñoo dëkk Pambal presque une quarantaine de personnes ñu toog di waxtaan di saytu njox doxalinu commune bi yaakaar naa ku am looy nëbb wala ku am loo xam ne jàpp nga ne teguwul ci yoon loolu doo ko def waaw kon te bokk naa ci euh, juróom benn euh, juróom benn fukki maire yi nga xam ne ci Sénégal ñoom ñoo njëkk a def loolu kon loolu nit koo xam ne nag ubbi nga say porte nga ne kaay leen ngeen xool saytu sama yorin ak ni nit ñi ak ni homme politique yi ragalee société civile man ma invité société civile ne leen kaay ngeen xool sama doxalin kon tey ñooñu suñ fa ñëwee pendant deux jours te ñii wax ni bi ñu koy def invité naa leen parce que ay conseillers lañ invité naa leen ngir ñu ñëw fekkee loolu ñëwuñu ci ndaje ba xëy Euh, une semaine wala deux semaines après dajale ay xale ne leen kaay ñu def point de presse wax parce que dañ koy def ndax li dañoo jëm ay élections locales te yaakaar naa ne fi toll nii du heure boo nga xam ne dañu war a xuloo di xeex parce que fiñ ñu toll nii mooy heure boo xam ne dañu war a taxaw takku. ànd doon benn ngir lan jàppale président de la république ngir lan ñu mën koo utal parrainage bu doy ngir lan ñu mën koo falaat mu am deuxième mandat léegi nag suñu falee président de la république ba pare ba mu am deuxième mandat léegi su booba ñu wàcc ci ñu wàcc ci géew bi su boobaa nag comme ni ñu ko defoon bii paatar ñu daal di waat mais heure bi je pense que li ñu soxla ak li président de la république soxla mooy ñu doon benn ñu bàyyi suñu intérêt personnel yi ñu jàpp benn intérêt mooy intérêt président de Macky Sall ngir ñu falaat ko su élection passé ba ñu falaat ko nag mën nañ delluwaat ci làng gi ñu def ko comme ni ñu ko defee woon bii passé rek jàmmaarloowaat su boobaa ku mën sa morom société bi dafa ñëw euh, di euh, jàppale ñaari commune du Pambal kese muy Cefos day jàppale Pambal di jàppale euh, Chérif biñ ko defee société bi actuellement dafa nekk ci jafe-jafe moo tax ñetti at yi ñu weesu yëpp daanaka jàppal joxewul benn subvention nam ko arrêté pour Pambal noonu la ko arrêté pour pour Chérif Lo mais du caagin ne dafa arrêté kii bàyyi kii déedéet société bi moo nekk ci jafe-jafe ba mu arrêté loolu yaakaar naa bi ma fi ñëwee tamit jox naa lañ ay firnde ay preuve yi wal ne lépp lu ma fi wax rek joxe naa ci ay preuve xam nga luy yëpp soo ko gisee ndax ab conseil boo xam ne ci ñeenti at yi suñu xaymaa li nga ñëw assisté ci conseil matul juróomi yoon wala juróom benn yoon te bi ñu taxawee ne kat kaay la ñu càmbar doxalinu mairie bi woo société civile woo askan wi yëpp ñëwuloo kooku soo génnee pour nga joxe ay mauvaise ay fausse information dalay yomb information yi li ñu wax ni yëpp nag dañoo jublu ay élection waaw loolu dafa dugg ci cadre boo xam ne dañ dañ ko lëkkaloo ak waa Slovénie parce que tey amul benn euh, collectivité locale yoo xam ne am nga sañ-sañ ak possibilité di jënd appareil yu mel noonu parce que soo ko defee sax dañu naan bokkul ci say compétence ci cadre coopération moom nga mën a acquise euh, moom nga mën a fexe ba jot loolu kon moo tax ma ne la dañoo xamul doxalinu collectivité locale moo tax ñuy wax waaye suñ ko xamoon kon duñ ko waxee noonu